ca njalbeen mooy constatation def enquête financière def enquête patrimoniale téye loolu ba pare doog a ki am njariñ léegi euh, situation réew mi foofu la toll pendant ce temps dégg ngeen démb bien que euh, Ousmane Sonko ak ay gaam bi ñu ba tey ñu

luñu wax lu ndëbbin ku ndëbbi lu ndëbbin ku ndëbbin rey sa maam foo gisee lu ñuul da ngay daw la leen daloon ca la leen daloon ca eh, ca PDS la leen daloon ca ñoom Barthélemy Diaz mën na leen dalaat élection législative bi jëm c'est très important ku foog ni ay caaxaan la rek da nga xamut dañ leen ne non seulement daf leen di permettre ñu mën a mettre en place projet yi nga xam mom lañ bëgg pour développer réew mi pour ñu mëna ab xaalis outil xaalis ak liggéey parce que ñëpp ñu ngi naan dëkk bi euh, dafa metti pour que xaalis bi circuler pour que ñu mëna am euh, autorité ak possibilité dem lebi xaalis il faut que ñu am assemblée nationale bu taxaw mais it amna na leneen lu important ma ngi leen di wax légui léegi kaaw reddition des comptes bu fekkee ne Lat Diop mën nañ ko convoquer mu ñëw wuy si ce n'est pas Lat l'ancien ministre lañu ñu convoqué déedéet c'est Lat l'ancien DG de la lonage dañu convoqué mais bu ñu naree càmbat li nga xam ne Lat def na ko en tant que ministre loolu beneen coow la parce que dig mii mënu ko convoqué parquet bii mënu ko convoqué bu leen fàtte nekk li ñuy wax euh, euh, nuñ ko waxati qui de juridiction euh, le privilège de juridiction nga xam ne képp ku mës ministre comme ku mës a président de la république tribunaux yi ñuy atté ay Babacar Touré ak ñom sen lu mom moo lay bu boba il faut la haute cour de justice mo mën taxaw pour ñu mën atté atte ki ministre satch ministre détourné comme président de la république haute cour de justice rek lañ jëm té lan moy haute cour de justice ce euh, tribunal la y xamné 15 personnes 15 euh, personnes moy fukk ak juróomi nit composé mais la ca la ca la ca doy war la la ci la ca ñett rek magistrat de fonction ñett rek nous sommes ay magistrat président cour d'appel ainsi de suite Il faut ñaar yeneen yi des yi nga haute cour de justice loi dafa ne ay ay ay député parlementaires, nous doon ay parlementaire dem pour nous voter la nga xam mise en accusation nit ki pour nous attaquer. 12 parlementaires or tay bëss bi may wax ak le 22 septembre 2000 24 le Sénégal n'a pas de parlement Sénégal amul assemblée nationale amul Sénat a dara parlement donc tey jii du du du du Lat ministre du du du Aly ministre du du kenn si ñoom koo xam ne nañ la kai la binga xaalis bi nga sàccoon wala xaalis bi nga téegoon wala leneen ak leneen nga ñëw nga wax si képp ku doon ministre Fall euh, euh, ñoom Aïssata Tall Sall ñom ñep kenn ngi leen convoquer bëss bi nekk tey parce que cour ba nga xam ne mo len wara mom mo len wara wara wara até mënul nek parce que il faut impérativement ñu am parlement le Sénégal amul parlement waxtu moy wax ak jusqu'au 17 novembre bu ñu défé élection prise élection législative ba paré ñu doog xalat lool benen, benen la nga xam mo important bu ñu yeggee foofu bu fekkee ne mbooloo ma nga xam ne mooy député ya nga xam ne ñooy composé haute cour de justice boobu parlementaire yooyu bu fekkee ne ànduñu ak Pastef anduñu ak la nga xam ne mooy la volonté populaire de jugement kon bu boobaa lu bëri dina yàqu moo tax il faut à la kulli xaal jox majorité parlementaire Pastef pour que mu mën a dérouler la nga xam ne mooy reddition des comptes mooy revenir sur la loi d'amnistie bi nga xam ne moom lañ bëgg pour ñu atte nous avons ray 86 ou 87 qui domi Sénégal. ña nga avons imposé fi imposer fitna ci kaw domi Sénégal. élection législative yi do ay tiaxana ah. non seulement il faut que député députés soient fiables. deuxièmement il faut que mu nek nit train de dañu and ak l'idée que impunité dafa wara jeex ci senegal taxna biñ len waxé kaw haute cour de justice ba nga que le Sénégal mënu ko am tay parce que Sénégal mënul am tay parce que amul assemblée nationale parce que amul parlement il faut impérativement ñu le 17 novembre ñu installer, ñu am euh, ay député yu bees ba kérok ñuy installer député yi ba kérok ñuy xalaat dem créer li nga cour de la justice parce que le pôle judiciaire le pôle financier pôle judiciaire pôle financier judiciaire comme ñu waxati bi nu koy xalaat dañu fàttewaale la nga xam moy haute cour de la justice jëluñu ko en charge pôle financier parquet financier bi ñu teg mënut ministre yoy mënut a convoqué ministre yoy donc c'est très important ñu bàyyi xel ñu bañ def erreur yoy parce que lu ñuy wax euh, xam-xam la lu ñuy wax du wax yaa ma neex kenn ñoo porter projet bi kenn ñoo xeex pour que Macky Sall la jóge fi kenn ñoo xeex pour que Sénégal mo am jamm mais duñu bàyyi kenn ci seen njuumte duñu bàyyi kenn ci seen bàyyi xel ci yenn yi te ñun ñu war a mën a fekk am na ñoo xam ne c'est la première fois ñu xam ñu faire face à un état ñu xam lan mooy le fonctionnement d'un état ñun depuis des des jamono bu ñu dugulee bu ñu amulee fonction étatique nous avons toujours été des journalistes ñoo xam gis nañu réew mi di donc loolu moo dafa jub dafa réew mi pour ñu les erreurs yoo xam ne l'histoire doit servir de boussole Et ñu def servir tout le temps tappalekat yi dinañ jógaat encore Babacar dafa mer déedéet meruma de damay artu Babacar dafa bëgg a jàngale suñu enquêteur yi ni ñu enquêté déedéet jàngaluma kofate, mais peut être dañ ko fàtte buñ ko fàttee ma fàttali leen ka dañ ko fàtte woon bi ñuy jàpp waa 27 personnes dugal leen ci kaso bi ne leen yéen a rey fa bayot bi mo jógee di ci wax tappalekat yi li ñuy wax tey loolu ngeen doon wax jamono dafa bëgg a jàngal dafa bëgg a jàngal suñu enquêteur du ñu enquêté ah Babacar Touré complice la Babacar Touré traître la Babacar Touré rebelle la ainsi de suite animu six ans ngeen tëj ay nit ñu xëyte ñu ne la Babacar waxoon il y a six ans mooy dëgg donc suñu yëgoon ñu bañ leen a tëj yàq ay foyer yàq ay famille yàq ay nit danaa wax aussi longtemps que je serai libre danaa wax sama xalaat parce que gàcce laay bañ suba man duma ànd ak ku may gàcceel te lu ma wax lu ne la ma wax lu ne mu neex leen mu naqari leen tey da ngeen day metti seen xol day dagg seen xol mais ala kulli xaal bés dina jot ngeen ne pourtant waxoon nag duma def dara ci parparlu lépp lu may wax ci xam-xam laa ko teg lépp lu ma wax ci gëstu laa ko teg donc fii la réew mi tollu tey bu fekkee ni jël nu seetaan nañu bàyyi na nañu majorité bennoo Bokk Yaakaar moo xam Benno Bokk Yaakaar day dem am bloc wala day tas ñoom ñoo xam mais tey dafa dañu bu ñu demee ba ñu war a constituer haute cour de justice ñooñu dinañu yàq plan dinañu yàq projet de reddition des comptes yi bu ñu bàyyee Benno Bokk Yaakaar ak ñamu àndal ñu fexé ñu jox leen majorité la nga xamné moy amnistie bi nga xamné ne loi tapalé bi nga xamné Macky Sall rey ay nit reylu na ay nit mu fexé ñu muur loola loi d'amnistie bobu duñ ko mëna dindi. motax il faut coûte que coûte que majorité écrasante leneen lo xamné metti na ma ci moy euh, révision exceptionnelle des listes électorales bi nga xamné ne nee du ci am parce que sénégalais yu bari nous seen carte d'identité ñi seen carte d'identité réer na nous, euh, dañ leen dañu inscrire ñu bañ bu leen ko ñu leen ci donc nous voter alors que nous, tey citoyens sénégalais lañ ils ont envie de changement